Euh, ba tey xol yaa ngi tooy ci juróomi doomu Sénégal ya ñàkk seen bakkan ca lakk-lakk ba ca États-Unis di Djibi Diol soxnam mi ak seen doom jooje di Khadija nga xam ne amagul ñaari at waaye it rakku jibi jool di Kumba jool mu nga xamante ne ni euh, boroom këram mi ngi fii si Sénégal foofe sax la amee doom mu nga am huit mois doom ja euh, tey giseegul sax ak papam lu dul WhatsApp bi ñoom ñëpp ñàkk seen bakkan ci boobule lakk-lakk ñu ne loxo jógu ca seen fii ci ñuy dund ba ñu yëggee mbir mi ba tey ak méttit bu bari lool gan waaye it ak njàkkare gannaaw rekk ba ñu mën a gulee jot si seen koor yooyu maanaam si néew bu xale yi nga xamante ne ni ñoom la ñuy sàkku rek mooy ñu denc leen fii si Sénégal moo gën a dal seen xel waa Denver daal di nañuy nag rendre hommage juróomi doomu Sénégal ya fa ñàkk seen bakkan ci boobulee lakk-lakk ñu ne loxo jógu ca waajur bu góor ji nga xamante mu nga foofee ca États-Unis si yëkkati rek ay kàddu la mu ca xamle nag moo di ana lan la jibi def ba ñu ko war a rey si noonu muy boole nakkar ak mer ne nag na si yoon def liggéeyam ni mu waree si eh, noonu ba tey mu ne jibi amul benn problème ak kenn laata rek muy naan xanaa foofee ñu nekkoon amul kaaraange eh, ñu jël doomam yooyu yëpp daal di faat si boobule lakk-lakk si seen dëkkuwaay eh, ci yoonee nag la ko mer bi ak nakkar bi tàmbalee rek di ëppati doole tax rek ay galeewam ya mu nekkal foofee ñëw jël micro ba mu yoroon di wax daal di taxaw rek di koy jéem a dëfalati ya nekk tamit CSU ak frère yu Djibi ñoom it daal di nañuy def rek témoignage yu am solo lool si Djibi Diouf ak famille yam njiiti réew mi Macky Sall moom nag fas yéene na taxawu rek famille yu Djibi Diouf gannaaw sa bam fa yebale ab a jébbal leen enveloppe juróom benn million si suñuy koppar ba noppi rek daal leen dig ne seen doom yooyu ne danañu si def kéem kàttanam ngir rek ñu delloo si leen fii si Sénégal comme rek na ko famille bi di sàkko ba tey ngeen di tataan xibaar yi ci Dakar Buzz ma jël roplaan dem Denver nekk ca diwaanu États-Unis ña fa nekk nag daal di ñuy rendre hommage juróomi doomu Sénégal ya fa ñàkk seen bakkan ci ab lakk-lakk bu ñu ne rek loxo jógu ca waajur bu góoru Jibi Jool nag nga xam ne rek mi ngi foofu ca diwaanu États-Unis daal dina yëkkati ay kàddu si lu doy waar te metti lu dal seen kaw lu mu xam le nag moo di ana lan la jibi def rek ba ñu ko war a ci noonu mu fësal nag karam ak xolam bu jeex nee na si yoon def liggéeyam ci anam bu mucc ayib euh, laata sax muy naan jibbi amul problème ak kenn si noonu mu ne xanaa kaaraange sax dafa amul foofee ñu nekkoon euh, ba ñu fay rek taal famille lëmb si noonu nag lañu ñu seetloo rek muy gën a monter ak rek mer ba euh, tax ba ay doomu Sénégal ya fa nekk ñëw rek jël micro bi moom di koy dëfalaat si bile xibaar laay desandee ak yéen ña dëkkee ca Denver daal dina ñuy rendre hommage juróomi doomu Sénégal yu bokk ci benn famille ñàkk seen bakkan juróomi fan ci weeru août atum 2020 si ab lakk-lakk bu ñu ne loxo jógu ca ñoom ñëpp nag daal di nañuy rek génn di nakar lu li ni mel tey def témoignage yu rafet ci Jibi Jool ak famille yam Jibi Jool nag di ingénieur mi ngi dëkk Géejawaay moom moomee da doon sax doog toxu ak soxnaam foofee ca États-Unis bu ñu sukkandikoo ci pompier yi ñett ñu si sauvé ndek ñoom ñoo ñee dañoo sauté deuxième étage ba tax yàlla musal leen si étudiant yu CSU tamit eh, desuñu gannaaw benn yoon ci mbir mi gannaaw ba ñu génnee ñoom it eh, fësal si seen nakar tey def ay seede eh, maanaam ay témoignage yu am solo ci kii di Djibi Diol ak famille boobe laata rek frère Djibi Diol bii di Abdou tamit di si yëkkati moom it kàddu rekk jaar si ay kaddu waajuram bu góor moom it nakarlu bu baax a baax li ni mel te koy ñaawlu di ñaan rek ngir yoon def si liggéeyam ci anam bu mucc ayib état bu Sénégal desul gannaaw gannaaw benn yoon ci juróomi doomu Sénégal yooyu ñàkk seen bakkan ca Denver ab délégation présidence de la République Moïse Sarr di secrétaire d'État aux affaires étrangères jiiti ko daal dina ñuy dem ci week-end bi Guédiawaye ngir jàll famille Diol seen doom yooyu ñu ñàkk enveloppe juróom benn million ci suñuy koppar nag la ñu leen jox laata rek État du Sénégal di engagé wu ngir rek indi juróomi néew yi comme nu ko famille bi di sàkkoo enquêteurs yi nag xam nañ ni am nañu ay indication ak yenn firndeel si lu ñeel ni rek euh, lakk-lakk boobee loxo jógu ca euh, police sénégalaise gi tamit fas yéene nañu euh, génne bépp matukaay bu ñu am ngir rek ñu xam ñu def li ni mel way la ku ko def lu jege nag juróom-ñetti million suñu koppar la ñu diggee ngir trouver trace criminel yi